Bougane élection yi yaay participation fala force Bougane kenn du la tëj fii kenn du la fi tëjee fii yow yaay kii bokk bu la neexee saagal jumaay bu la neexee ne yow si tali bi yow nga la ngay bañ ñu ne yow si tali ay Bougane boo rombee yëmbal Bougane yow duur ba ngay romb yëmbal xëy fii laay taw xaal boo ñëwee dinaa tëj sa bopp wala ma matt la si rek <laughs> ay zéro zéro virgule ay bugaan gëm sa bopp zéro voix di nga gaan eh kooku la teg fajir eh li ëpp na <laughs> ay way sa ko do rayit ay nit ak rasulullah yow dal fu rom mu no tane fa rom loolu tel len tam yeen heure bi ngeen wara commencer campagne xey leen campagne yeen ñi nek sa position bi parce que moom pour fu mu romb mu no tole fa rombat ay way réew mi ak seydina muhammad ku gaan célibataire baaxul ñun fi ñu toog dañuy mer ñun célibataire. njiitu télé boobu nga xam ne mooy ñi wéradi xel mi te nga xam ne moom mooy seen njiit ci wàllum wéradim xel moom moo leen jiite yàlla xam na ko waaw ah, nee na day conférence de presse dama romb vidéo am sànq ci TikTok bi man dama koo yërëm xam nga ma yërëm ko moom tout le temps day jéem a jouer ak jeunesse bi di jéem a jaxase jeunesse bi nga xam ne ñoo fal président Bassirou Diomaye fay ci ndigalu Seydina Ousmane Sonko 54 pour cent. cinq mois ci ginnaaw nee na ñun lay jaxase ak moom. Naby Vision yooyu ngay wax noonu. ay dem ci gaal geeg ay marchand ambulant yooyu dawut suñu yaram ñun Seydina Ousmane Sonko moom lañ gëm lum ñu def neex nañu noppalul te bu élection yi ñëwee ba nga bokk ne da ngaa bëgg a doon député ci ngay xam ne ba léegi ñun ñoo ngi gëm Seydina Ousmane Sonko Guèye Dany noppalul. mënoo ñoo jaxase ak Seydina Ousmane Sonko ñun moom la ñu gëm noppalul. mais parax parax yi xaatar xaatar yi ba daal di tas assemblée nationale loi ba ñu dugaloon pour criminaliser góor jigéen la ñuy bañ loolu mu yemb parce que nag ñoom ñoo ne tolere nañu góor jigéen yi ci réew mi ñun toléré wuñ ko ñoom ñoo ko wax kon du ñu leen fi jox benn doole assemblée nationale pour ñoom ñuy indi tolérance góor jigéen ci réew. mais gan Gueye yow lutax jom ci bopam amoko man jaaxal nga ma yow li legui moy sa campagne quoi yak der manipulation bàyyi sa li ngay def yow projet de loi gor jigen bañ kay duggal assemblée yaangi ba an sam yi don ko duggal ak jamra si nguru Macky Sall député yi waron voter yaangi ngi fàttaliku ñan ñoo voter won contre ak ñan ñoo voter won oui wala yow lolou dang ko faté kon bo taxawé fi bëgg jël wax jooju di collé motif ñi ni ci loolu moy que ni yow say pexé jeex na. bi vi li nak li <laughs> mom man ay ree ma def parce que amo argument quoi bàyyi yërëmal say njabot yërëm sa soxna yi nga mo gën mag nga nga tok ci télé yi di nar ni di fen rek bàyyi sa li ngay def té nga jéem liggéey ngay wax fi sa wax yi amul ben sens yi nan ay ñi lan moo tax ñu tas assemblée pour lan <laughs> yow xam nga moo tax ñu tas assemblée kon xam nga lan moo tax ñu tas ko pour dàq député yi fa nekkoon te voté woon pour loi bi ñu tegoon pour criminaliser góor jigéen ñoom ñu dàq loi boobu noonu mooy député APR yi voté woon contre loi boobu noonu jëlee leen fa loola tax ñu tas assemblée pour teg fa ñoo xam ni loi bii bu duggaatee di nga xam ndax dinañ ko voté wala duñ ko voté koo rek. sa tët tët tët tët sacré Bougane non Bougane su ma koy déglu day mel ni man waxtaan bu amul njariñ quoi xam man même dans la vie en général ay waxtaan bu amul njariñ de man damay fàtt su ma toogee tey nga xam ma dem toog fële xool sama benn documentaire wala ma ne sama am noonu la nga toog naan ay maanaam euh, kii amul jumaay euh, amul charisme foog nga am lii foog nga am lii jumaay Kim Jong Un xool gis nga nu mel Kim Jong Un comme ndaaw ndaawu ñaari boo teg ngan di passant mais gars yi moom lañu gëm moo tax parce du habillage su fekkoon ay physique la ñuy jël kon cœur brisé dem jël mannequin yooyu fa ne noonu ñu ñëw jox président mais ñun ay nit ñu am ay valeur xam-xam ñoom nañuy fal yow bu ñu tegee côté mërs jomaay moo la raw jomaay kenn déggu say aji saar la doon jéem a rangu àll nag appartement wala yeneen ak yeneen fenn tu vois balaa may dee nga naan ay Sonko mosul gérer dara à part li ma dee yow yaa ngi ni rek foo ko teg mën nañ nga gérer jóoni jóoni daa daanoon te Sénégal euh, Sénégal mais critiquer c'est facile bañ ko opposé wu quoi mais nga opposition bi daa am na am matière grise quoi mais bu dee Abdou Nguer ngeen yaakaar dof yooyu ah wala dajale sa gars yi si kër dof yi ah seen émission bu seen TV tey ngeen di Badara Gadiaga suba ngeen di hypocrite ma ni Cheikh Yérim Aïssatou Diop Fall nekk fële ma ni néew bu am ñaari fan ñu fa euh, courant coupé ñu fàtte ko sanga yaa eh, fi mais bu dee loolu saa yi doo am dara xoolal Pastef bi ñu ah, opposition bi yéen tout réuni Amadou Ba da euh, doo leen wax benn xam-xam ay saak montre amul lii mu non c'est élémentaire quoi tu vois lii c'est déjà vu li ngeen def affaire def nañ ko da ngeen war def yéen assise xool fan la war a mën a pëlee ba wër ndomba booy yi parce que booy yu wóor moo leen di daan booy yi ay caaxaan daanu leen mais vraiment c'est élémentaire tam salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki patriote yi mbokki te di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax ne suñu réew mi daal yal nañu suñu borom subhanahu wa taala defal jàmm parce que adduwaa usilaul mumin ñaan mooy ngànnaayu jullit ginnaaw effort yi def yëpp tamit nañ ci boole di ñaan mi suñu borom defal ñu ci tawféex ba noonu yëpp mën a tëj seen làmmiñ ji yàlla nañu ko yàlla defal ñu di bégge di leen siyaara wax ne ku mel ni Cheikh Yérim Seck génnati na waaye Cheikh Yérim li tax ay waxam jëratul gëm mooy yàlla xam na ne élection yi yàggul moom moo ne woon nañu surveiller bu baax a baax a baax euh, Déthié Fall parce que mën naa gagné election yi ci gagné bu leer waxaat ne bu Boun Abdoulaye jon yàlla na ko yàlla yërëm mën naa andi surprise ci élection yi léegi loolu yëpp moom France daal di xëndal kenn ku nekk ci ñoom gis ngeen li mu am kon moom réew mi ñëru ko kon moom réew mi ñëru gisaat nañ ko ci télé yi muy wax li tax nga xam ne bëggul réew mi yéen ñëpp mën ngeen def ko champ boobu ngeen xool Cheikh Yérim sekk bu fekkee dafa nekk Sénégal fii nga xamante ne ku ne xam ne ne opposition bi ni ñu bañe waa pouvoir bi réussite mu taxaw ne bu fekkente ne da ngeen a jox euh, gouvernement bi majorité loolu musiba la alors kon xam ngeen ne kooku bëggul réew mi parce que Sénégal bu mu bëggee mu dox barke alxuraan bu boobu ku rek rek fàtte sa bopp te ñu jox ñi majorité absolue pour ñu mën a doxal réew mi parce que waa benno boo xoolee ni ñu doon galgale état wii nii bëgguñu ñoom ñu réussir te dañoo bëggul réew mi parce que ku bëgg sa réew tubaab yi dafay am ñoo xam opposition bi ñoom ñoo fay am majorité dañuy bàyyi président mu déroulé ay projet mais fii xalaatuñu ko parce que dañoo contre gaay ba bëgguñu ñu réussir ak matt bëgguñu ñu dam ko ci dëkk bi ci lu baax kon kooku bu taxawee duñu conseil cheikh bi ay waxam jarul gëm te bu ngeen ko xoolee ngeen bàyyi ci moom xel saa bu élection yi génn ci lay tegle gi saa bu élec saa bu ñuy waaj élection ci lay tegle génnam yu bari yi ci lay tegle génnam élection présidentielle yi nii la doon def gis nga législative yi commencé waat na mais yow noppalul parce que nit ñi gëmuñu la xam nañ ne xaalis nga bëgg xaalis bi mënoo ci amee xaalis dégg nañ la ngay victimisé wu naan dañ may menacé ma ne ci ay caaxaan dong ci nga tënku kenn menacé la demal nga toog nee nga nag bon jàkkaarloo nga man li ma gën a jaaxal ci ñoom yéen nekkatu leen ay journaliste en fait yéen ay opposant ngeen yow ak Badara Badara Gadia ak conse googu parce que bu fekkante dañu la invité mais pourtant même boo critiqué del wax ay idée parce que bëgg nañ lool quoi ñun ngay wax fi ñu war a jëmee réew mi au moins ñu xam ne yow. Naby Vision bon bëggal nga réew mi jàmm quoi mais critique sànni xeer yeeg yenn ñooñu booy déglu ñu leen ñun ñi déglu ñu leen mag ñi bëgg réew mi déglu ñu leen. si kattanu suñu borom réew mi la ñuy topp di accompagner gars yi nekk ci pouvoir bi yàlla defal leen jàmm yàlla yàlla leen jàmm bu baax te bu leen masa fàttale di set ndax date bu symbolique la boo xamante ne nii. dañ ko war a gañe gañe bu yéeme te gaa ñun ñëpp nañ ci def suñu yitte def ci sunu lépp pour seen pour intérêt réew mi barke alxuraan yàlla ñu yàlla defal jàmm am na waxkat yoo xamante ne maanaam dañuy wax bay weddiwaat seen bopp ci seen biiri wax muy Cheikh Yérim Seck ak consort googu moo tax kenn déglu leen dañ leen di ruube ci fii ci internet bi ci du ngeen ci man dara gis ngeen ñu leen di tegal lu nekk gars nañu réew mi ñor projet bi ñor ñu ñu focus ci réew mi kenn ku nekk sa liggéey ba nga nekk nga jàpp sa téeméeri loxo ak benn fukk loo am denc ko xam ne moo lay jariñ incha allah rabbi yàlla na ñëpp am jàmm patriote di jiitu ci bonne journée. waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dama bëggoon wax tuuti ci le cas de Bogan Gueye Dani nga xamante ni que j'ai été très déçu d'entendre ces euh, arguments yu ma bett trop ndax kilifa dafa war a am comportement bu mu war a am ci réewam. ci kaw danga bëgg nu fal la am lu la jox ci sa réew senegal danoo tàmm yar ak teggin fonk mag ñi te xam ni kilifa diine yi kilifa aada yi ñépp nañ lay déglu te boo bëggee falu nekk ci réew boo xamante ni que duna am seen cosaan ak seen aada am seen lu nu moomal seen bopp ça veut pas dire que Sonko dafa incarner style de politique am rek Bougane nga ni nga def comme Sonko tay mën nañ wax ni da nga bëgg nek Sonko numéro 2 man nak mbettel bu ma am ci yow modi li nga wax Bassirou Diomaye Diakhar Fay le président de la République du Sénégal Bougane xana xamoni ni. Vision. président de la République. c'est une institution. yow mënoo wax ni da nga bëgg doon njiit ci réew nga am arrogance am waxin bo xamanteni que ci politesse gis waxin bo xamanteni que na kersa gis façon waxin bo xamanteni ko que ku ku ne xep la Bougane wax ji dafa jeex fu mu toll ni parrainage amul fu mu toll ni wax ji combat bi ci terrain bi bàyyi leen wax ji te liggéey ndax gis nga yàlla def na ci xol yi Bassirou Diomaye Diakhar fay président de la république ba noppi yàlla def na xol yi ci président Ousmane Sonko te loolu la yàlla dogal te nag président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre Ousmane Sonko daan na leen jël bu nu dootul mim sànni karawaas way daw kon ku yabul xam sa bopp Bougane li ma lay wax lenn la eh, am yar dafa am solo ci mim réew te nag Naby Vision wax fa dëgg yàlla soxla nañ ko ci yow